hello everyone welcome back to Sen Sport 221 dellusiwaat nañu fii ci kër gi di leen leen ci kayiti xibaar yi transfert la ñuy wax ak ki nga xamante ni mooy Aliou Badji nekk attaquant sénégalais bi bi nga xam ne ñëw daaw gañe fa lu toll ci ñetti trophée bi ci gën a fës di Ligue des champions d'Africain bi nga xamante ne ko bu yàggul dara moom Aliou Badji nag mën na amal retouram ci Europe kayiti xibaar baa nga xam ne ne jege na loolu ngir engagé ak benn waaye fi léegi waxtu yu néew dinañu xam ana ban club moo war a signé kii di Aliou Badji maanaam benn pere nag lay doon maanaam dañu koy able ci benn saison bi nga xamante war na ko def foofule Aliou Badji nag am na yeneen i yi nga xamante ñu ngi ko doon topp foofule ci Europe rawatina fii xibaar baa ngi fesal ne dina signé ak benn club bi nga xamante mu ngi foofule ci championnat bu Turquie dinañu topp xibaar yi fi léegi waxtu lépp ci ruus dinañ leen ko indil fii ci kër gi buñ jógee ci loolu dañuy wax ci ki nga xamante ne mooy Ismaïla Sarr moom tam dugal na démb ci match bi nga xamante ne ñii di Norwich City amoon nañ ko seen diggante ak Watford moom Ismaïla Sarr moo dugal benn bii bi nga xamante ne moo permettre équipe am boobu la di Watford daal dóor ñii di Norwich City jamono yi nag ñi nga xamante ne ñoo di waa Watford jamono ñu ngi ci egg tuuti bokk nekk ci li nga xamante mooy ci sixième place bi ci championnat boobu ñuy wax championship nekk 9 ci ginnaaw ñi nga xamante ñooy leader yi di Norvège City mi nga xamante ne moom la ñu dóor démb benn bal ci dara di bii bi nga xamante ne ngi jóge ci Ismaïla Sarr muy quatrième de la saison foofu la ca championship bu a